waaw bu ñu ci doon dikkaat mooy loolu dafay wane ne rek euh, assemblée nationale ak euh, pouvoir euh, exécutif maanaam gouvernement bi ñu ngi ñu ngi liggéey xam ngeen ne ci ginnaaw dañu tëjoon ko session ordinaire bi session unique bi tëjoon nañu ko ci mois de juin fin juin ginnaaw bi mu am ay xew-xew yu bees xam ngeen ne bi président de la République ubbee dialogue national bi. dafa amoon benn parti ci dialogue politique boo xam ne parti yi euh, parti politique yi ak yenn force vive yi ak société civile ñoo ko seqoon pour waxtaane luy jëmale suñu démocratie kanam donc bi ñu waxtaanee ba pare dafa am ay point d'accord yoo xam ne tënkoon nañu ko euh, parti yëpp d'accord ci euh, classe politique bi gis ci boppam ñu ne bu ñu waree dem élection en février 2024 faaw ñu am ay soppite yoo xam ne nii dafay gën a leeral élection yi pour que dafay gën a permettre aussi élection yi mu ubbeeku ñu bari man ci bokk ñu dem ci élection dans des conditions paisibles euh, donc euh, loolu moo taxoon bi ñu paree président de la république jël ay projet de loi parce que accords yi dañ koy traduire en loi jël projet de loi andi ko ci assemblée nationale comme fekkoon na session bi tey nag moo tax ñu tuddee ko session extraordinaire session extraordinaire ñun député yi mun nañ ko ubbi président de la république mën na ko ubbi par décret donc loolu lañu def loolu tax tey ñu ubbi session bi pour maintenant pouvoir examiner euh, projet yooyu nga xam ne jógee na ci dialogue politique bi pour ñu mën ko transcrire dans la constitution et dans le code électoral. article 87 dafa nekk article boo xam ne en fait du lu bees maanaam dafay organiser ce qu'on appelle le pouvoir de dissolution euh, assemblée nationale ak gouvernement dañ leen euh, tëgg tëggan boo xam ne c'est vrai c'est la séparation des pouvoirs waaye ku ci nekk ci ñaari organisme yooyu am nga possibilité sanctionner keneen ki euh, assemblée nationale am na lu ñuy tuddee motion de censure donc moom dafay mën a sanctionner gouvernement bu dee jàpp ne ne gouvernement bi doxalul bu baax wala gouvernement répondrul suffisamment ci aspiration population yi wala mu am crise assemblée nationale dafay am ce qu'on la motion de censure dans le cadre de l'équilibre des aussi toujours gouvernement aussi moom tamit dafay am pouvoir de sanction sur l'assemblée nationale loolu la ñu tuddee pouvoir de dissolution ñaari pouvoir yooyu yëpp dañuy war di équilibrer alors li xool motion de censure bi encadré wuñ ko ci deux ans alors que pouvoir de dissolution bi dañ ko encadré ci deux ans maanaam tey assemblée nationale am nañu possibilité dès l'ouverture d'une session xool gouvernement bi def motion de censure comme ni mu xewee woon ñu nommé euh, premier ministre Amadou Ba ba ñu def gouvernement amoon na motion de censure xaaruñu deux ans gouvernement donc te comme pouvoir dañu war a équilibrer nag loolu moo tax bu ñu tënkul bii waruñu tënk bi ci des surtout que booy xool au fond mooy lan mooy kon mën nañu toog deux ans assemblée nationale du fonctionner mu am blocage mu am dysfonctionnement mu am ay crise te président de la République qui est garant du bon fonctionnement des institutions du mën a intervenir loolu moo tax président ne moom jàpp na ne lii benn anomalie la effectivement booy xool le bien fonde de la réforme n'est pas contesté parce que dafa war a nekk réforme dañ ci war a profité sax encadrer aussi le pouvoir de dissolution parce que pouvoir de dissolution mu ngi ci constitution à part les deux ans tey président bu falu mun na organiser élection deux jours après mu dissoudre assemblée nationale te loolu waroon nañu profiter ci réforme bi justement pour mën a régulariser loolu ba nga xam dañuy encadrer le pouvoir de dissolution comme ni ñu encadrer euh, la motion de censure malheureusement euh, coow bi bari na à commencer par notre groupe parce qu'il faut dire quand même que notre groupe c'est un groupe de démocrates de d'hommes libres et de députés libres quand le président nous a reçus on lui par rapport à la réforme il a pris bonne note Euh, nous avons continué les discussions avec le ministre Garde pour voir dans quelle mesure faire une bonne réforme. Une bonne réforme, c'est une réforme qui est euh, conforme au progrès démocratique, à nos aspirations démocratiques. Donc loolu bi ñu ci waxtaanee ba ci yàgg wax nañ président daal ne ko même sur les réformes bi sur le plan du bien fondé amul benn discussion parce que réforme bu ñu war a def la dañu war a encadrer davantage le pouvoir de dissolution euh, mais jàpp nañu ne peut-être le débat se pose en termes d'opportunité effectivement donc le président nous a écouté il a il a écouté aussi certains députés de l'opposition parce que président ñëpp a euh, écouté la société civile ce qui est à fait normal et finalement il a donné les instructions au ministre garde des Sceaux de retirer l'article 87 de la réforme qui est engagée ce qui est une bonne chose ça nous permet justement de nous concentrer davantage national pour pouvoir faire euh, une session extraordinaire dans des conditions de paix. Surtout qu'à la base d'une réforme, il faut quand même réussir la et apparemment, cette communication était un loolu aussi président tontu na ci bi mu ñu recevoir dafa ne woon moom du couplé ay élection na ko ne na woon moom sax moom bu réforme bi jàllee moom ci boppam du appliquer dissolution bi mais dafa jàpp ne président biy ñëw normal na ñu bàyyil ko euh, tout l'arsenal toutes les manettes te kooku président boobu mën na jóge ci opposition comme mën na jóge ci pouvoir parce que yàlla moom moo xam kan mooy kan mooy nekk président mais générosité moo ko ci dugal pour mu ne il faut que peut président bi ñëw ndëgg sërëx yi mu gis ci constitution bi ñu mën ko nettoyer ba nga xam ne su ñëwee dina apprécier est-ce que dafay dissoudre wala du dissoudre et puis mu def ko dans un délai qui est raisonnable parce que booy xool li ñuy bañ mooy euh, bu ñu continuer nii septembre la ñu mën a dissoudre assemblée donc président bi ñëw bu ñu ko falee avril dina toog déjà cinq mois su dissoudre dina toogaat 3 mois pour organiser ay élections après boo moytul kon année boobu yëpp booy xool sur un mandat de 5 ans année électorale lay nekk. te baaxul si dëkk bi baaxul si ki ñuy foog soog a fal mu ñëw toog ak équipe am normalement il doit pouvoir travailler dans des conditions de sérénité mais ça n'a jamais été question de coupler les élections ça je peux vous confirmer le président l'a dit en présence de 82 du groupe et donc loolu ñëpp xam nañ ne président waxoon na ne moom du ko appliquer déjà donc bu ko appliqué wul moom mënuñu coupler élection yi parce que y a que lui qui peut pour pouvoir coupler les élections bu ñu ko dindee kon dañuy nekkaat ci li nga xam ne mooy constitution bi actuellement en suñu installer une législature on ne peut pas dissoudre la législature avant deux ans donc ça veut dire quoi cette législature a été installée en septembre finalement deux ans yi pour mu mat c'est au, mois de d'août ou, ou, ou septembre donc bi bi ak boobu kenn mënul dissoudre assemblée nationale te loolu la député yu bëgg loolu la askan bi bëgg je pense loolu mooy nekkaat constitution de 2001 bi ni mu mel sur la base de l'article 87 dootul amati benn changement. qui est le candidat que les Sénégalais vont accepter ou <laughs> ne vont pas accepter mais li ma jàpp daal mooy on doit tous travailler à avoir un candidat vraiment qui est issu d'un consensus très fort à dire pour éviter vraiment les dispersions dans nos rangs parce que euh, loolu la président bëgg loolu la Benno bëgg lool la APR bëgg avoir le candidat idéal qui va faire le consensus au sein de Benno qui va faire le consensus au sein de notre parti l'Alliance pour la République ñu ngi ciy waxtaan am na ay candidatures yu déclaré yo tudd fii fii tudd fii je pense que président xam na ñëpp parce que ku ci nekk ak moom liggéey nga ak moom de manière dans des conditions très étroites mu mën a apprécier les personnalités des uns et des autres euh, jàpp nañ ne aussi euh, dina mettre en avance loolu pour mun a tànn ki nga xam ne moom lañu jàpp mun na def le consensus fort mun nañu gañaloo ay élection donc loolu moom dañ koy jox carte blanche comme ni ko ñëpp joxee carte blanche li ci des nag moom mooy tànn am na beaucoup de candidats qui se sont déclarés mais li ma jàpp mooy candidat bu ñu kuy tànn rek da ngay da ngay exclure donc euh, maintenant il va faire peut-être à son niveau euh, à son niveau le meilleur choix su defee le meilleur choix ñun ñëpp ñu ànd ci choix boobu dem campagne yi parce que je pense que fal ñaari président mënuñu fal ñetti président benn candidat lañ a loolu mooy l'idéal pour ñu permettre de garder les chances de victoire ci loolu la ñuy liggéey ñun ñëpp incha allah. très bien.